mu ne ba tey ñu des sëriñ bi nee na mu ngi mag góor ndaw jigéen nit ku nekk mu ngi jëmmal wax ko ne ko gërëm naa fu nit ki mën a bàyyee ko ndem dikki nga ci gàmmoo gi li ko tax a dikk mooy mawlid bi sëriñ bi nee na gërëm na la ak foo mën a dox ak foo mën a nekk ak a dëkk bi nee na gërëm na la mu ngay na xolam sedd na xolam sedd na buy lépp lu bàyyi doon taxawal yéen a koy bëgg ba tey wàññiwu la ci dara yéen a ngi jublu baax te joxu leen gannaaw yéen a ko jublu rek yéen nee na loolu mu ngi leen lépp loo xam ne wax nañ ko ngeen def ko dimbale yi liñ fi liim ci ay nag kenn xamul nam na lool te loolu am am ñoo ko ñi xamut it dañu yàlla ñu am dañ xam lañ xam lañ xam lañ xam lañ xam lañ xam lañ xam ñoom doyloo nañ nee na ku joxe ñaari teg nañ ci seen bët àgg na ci seen liggéeyam ñu ko cay takk da wax lim dox da wax ñu ngi yàlla ñu ngi sant it koo xam am nga pas-pas dikk ñaan la ngay ñaan la leen la ñaan gi mu ñaan ci ñoom yal na ko ñoom it liy ñaan ci ñun ñoom itam liy ñaan ci yéen yal na ko yàlla nag yàlla nekk kaabara haaja ngeen ngeen yegg ci jàmm salaamatan wa aafiyatan siyaaban wa iyaaban ngeen bàyyi ci jàmm àgg ci jàmm bu ko defee nawet ci lañ nekk xàggagut waaye yàlla xat yàlla baax yàlla bat dugub ja bëri mboq ba bëri gerte gu bëri ak lépp lépp loo xam ne may nañ te bu boobaa yàlla ñu ko buudoo yàlla bu ko safaanat yàlla bu ko sàcc jël yàlla buñ ko miraas liñ fi teewee nii yéen lañ ko fi teewee déwén liñ fi teewee nii yéen lañ ko fi teewee déwén sëriñ bi yàlla yàlla dëgëral la yàlla yàlla bàyyi la fi ñu nekk ci sa gannaaw bépp mbala gi la mooy seen kër ci la judd seen kër wala seen waa ji laa ko fi toog toog ne màcc penku du jublu fenn léeg-léeg mu ne màcc la jublu penku du jublu fenn léeg-léeg mu jël kaala gi teg ko gis nga nga ñu toog nga gis nga nga ñu toog nga gis nga nga ñu mu dem ni fopp ko ngeen def ko foo koy bëgg ko foo koy bëgg feeñal ngeen ko ci seen dikk seen dikk da dikk da am lépp lépp da ko dikk da ko fi andi ngir màggal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam gërëm nañu sant nañ seen xol sedd na mu ne sedd daf daan wax lépp lépp dañ leen jëfër lépp dañ leen jëfër lépp gis nañ ko kon kay ñu ngi sant yàlla waaye ñoom dee yàlla buñ ko yàq ay ay yàq yàlla bu leen yàqal yàlla bu leen kenn yàqal de waaye yàlla yëg saaral mustaqim waaye nañ bàyyi po nañ tege saaral mustaqim mbee bi yàlla teg bi ko fooyee ba bokkute fo bokkute nañ ñu déggal fekkee siraatal mustaqiim loolu lañ xam loolu lañ bëgg loolu lañ miin loolu mooy seen ànd dox loolu la ñuy wetu la ko ëllëg jërë ngeen jëf sant nañ gërëm nañ xalifa sant na gërëm ta na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal kon na ñëpp dégg